assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokk yi ginnaaw bi nu leen nuyoo ci lislaam noo ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq defal ko mboolem jullit bokk yi sunu fàttalente ak yéen tey insha allah mi ngi jëm ci ngëne ngëneel yi nga xam ni tabax jumaa walla di ko toppatoo wala di ko taxawu mi ngi ci wala boog tabax bépp béréb boo xam ni nit ki mën na faa jaamoo sunu borom tabaraka wa walla mu sàkkoo fa xam-xam bu mën a jaamoo sunu borom tabaraka wa kom yàlla dafa dogal tey ñu nekk invité ci groupe bi nga xam ni ñooy alhidaaya sumb ab liggéey bu jëm ci lu mel nii liggéeyub tabax daara ak jumaa ànd ci ak beneen groupe bu ñuy wax sunu diine ak beneen groupe bu ñuy wax sisters fillah ak seen beneen groupe boo xam ni ñu ngi koy wax sàkko xam-xam nga xam ni fa la mbir ya tàmbalee woon nu nekk di sumb ab liggéey ci tabax daara ak jumaa yàlla dogal ñu doon seen invité tey looloo sabab ñu bëgg waxtaan lu jëm ci loolu nit ki ci boppam nekk ci am mbir di ca liggéey nga di ko fàttali liggéey bi nga nekk lan mooy ci sa fay dana ko sawarloo lool te dana ko gën a bëggloo liggéey bi ay yiw yu bari la nag mbokkum jullit mooy tabax béréb boo xam ni nit mën na fa sàkkoo xam-xam bu mën a jaamoo sunu boroom wala sax béréb bu mën a demee di fa jaamu ji sunu borom yiw la wu mag lool mbokkum jullit dana doy sëkk rek ñu xam ni sunu borom tabaraka def taala daf leen taggal boppam li wér mooy borom bi tabaraka du tagg ab yaafus yàlla du tagg ku jikkoom ñaaw yàlla du tagg ku baaxul yàlla du tagg ku ragalut sunu borom tabaraka nañu ko xam bu baax sunu borom nag dafa tagg képp koo xam ni yaa ngi tabax jumaa wala sax nga di ko toppatoo wala nga di ko taxawu sunu borom dala tagg yàlla nee na innama yacmuru masajid allahi man aamana billahi wal yawmi al axir wa aqaama alsalata wa aata zakata wa lam yaxsha illa allah fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin yàlla nee na nangeen xam ne ñii nga xam ni ñooy tabax néegi yàlla yi ci kaw suuf wala sax tabaxuñ ko waaye ña ngi koy taxaw ak di ko toppatoo nee na ñii day yàlla mu ñu nangeen xam ne ñooña ñooy ña gëm yàlla dëgg ñooy ña fonk julli lool di ko def na ma ko bëggee mooy ñay joxe azaka ak di saraxe fi sabilillah ma nangul leen te ñooña mooy ña nga xam ni ragaluñu dara lu dul yàlla waaye day ñooñee ñoo teg seen tànk ca yoonu njub yoonu dëgg sunu borom tabaraka wa taala nii la leen taggee ci alquranul karim bu fekkoon loolu rekk la dana doy sëkk ci ndam ci lu toll noonu ngeen xam ne sunu borom tabaraka wa taala du tagg ab yaafus waaye su la taggee rek baax nga ko ragal yàlla nga lool mbokkum jullit nañu bàyyiwaat xel bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد fashhadu lahu bil iman yonent bi nee na bu ngeen gisee benn waay di baaxoo di dem ca jàkka ja di julli ji ak di jaamu ji yàlla bu ngeen ko gisee ci benn waay na ngeen seede ni waa ji ku ragal yàlla la loolu la yonent bi wax na ngeen seede ni kii ku gëm yàlla la lan mooy jàngat bi mbokkum jullit béréb bi nga xam ni ku fay faral di dem ñu seedal la ku baax seddal la ne ku ragal yàlla ga seede ne ku gëm yàlla nga béréb boobee ka ko fa taxawal kon nu mel ka ko fa taxawal nu mel mbokkum jullit allahu akbar béréb boo xam ne ku fay dem rek yonent bi nee na seedale ne ku gëm yàlla la ku ragal yàlla la kon dey bërëb ba ka ko fa taxawal yiwam rëy na lool ba kenn xamut nu mu toll nañu ko bàyyi xel encore ba ca topp mooy léegoo-léeg nga dégg ko ne la tabax jàkka day bëgg naa ko lool waaye ay million ñoo koy def man day mënuma ko am ku ne tabax jumaa day bëgg naa ko lool waaye lañ ca wax dafa bari ci ay million te awma ko waaye nag sunu borom tabaraka wa taala doon ku bari man de doon ku yaatu xéewal lool xam ngeen ni yàlla moo wax ci alquranul karim ni ku def benn yàlla fay ko fukk loolu yàllaa ko wax waaye nag noonu yàlla waxee ni wallahu yudaa'ifu liman yashaa yàlla nee na ku def benn ma fay ko fukk waaye it ku ma ku def benn su ma neexee fay ko lu ëpp fukk ndax man maay fulandi lu ma neex borom bee ko wax kon exemple bi mooy x a ngi nii bëgg na tabax jumaa te amul xaalis bu bari y a bëgg na tabax jumaa amul xaalis bu bari z a ngi nii bëgg na tabax jumaa te amul lu bari a ak b ak c yépp loolu lañ bëgg yàlla dogal ñoom ñii nag ñu daja toog di waxtaan ku ci nekk di wax ni nga bëggee tabax jumaa x ne am naa nangam indi y ne am na nangam indi z am naa nangam indi ñu dajale ba yàlla dogal jumaa ja taxaw ci yaatu yërmande sunu borom ak ci xéewalam gu yaatu day bind ni x mi tabax na jumaa y tabax na jumaa z tabax na jumaa noonu la sunu borom yërmandeem toll noonu la ay xéewalam toll kon day ndekete ki andi woon sax benn téeméer ni def naa ko ca jumaa ji téeméer ba dugg ci jumaa ji sunu borom day bind ni yow mii tabax nga jumaa allahu akbar noonu la sunu borom toll ci yërmandeem ju yaatu ja kon day yow mi am saw fukk ni maa ko yóbbu ca jumaa ja ñu tabax ko fukk woowa day soppi ko ku tabax jumaa noonu la sunu borom toll nañu bàyyiwaat xel mbokkum jullit bokk na ci li gën a neex ci àdduna nga liggéey ñu di la fay weer wu jot ngay liggéey ñu di la fay weer wu jot nga dem a dem ba doon mag mënatoo léggéey nga retraité nga tëdd di nelaw ñu continuer di la fay lañ la daan fay amut lu ko gën a neex mbokkum jullit ci adduna yow mii day sama mbokkum jullit boo àndoon ak sa waay di liggéey ñu di leen fay weer wu jot ba yàlla dogal ngeen doon mag ngeen retraité waa ji retraité na waaye nag bis bu jot weer wu jot ñu fay ko lañ ko daan fay doonte mi ngi tëdd di nelaw yow nag moom ba nga retraité nga jeexal defe naa ki am xel danan kii moo ëpp sens ki ñuy fay bis bu jot donte liggéeyut koo ko ëpp sens loolu la ñuy wax ñun ñëpp yàlla nag suñu boroom ci yaatuk yërmandeem dafa amal loolu ci diinay lislaam da ko amal ci biir jaamam ñi kon dey umu muhammad a ngi nii di liggéey ci jaamu yàlla maam asan a ngi nii di liggéey ci jaamu yàlla Moustapha ngi nii di liggéey ci jaamu yàlla ku ne sunu borom di la fay ñoom ñii nag suñu génnee àdduna te yàlla na yeex sunu borom am na ci ñoom koo xam ne donte génne na àdduna da koy continuer di ko fay bés bu jot loolu am na lu mën a amee yonent bi wax na ko nee na juróom-ñaar lañ yàlla nañu ci yàlla boole nee na juróom-ñaar a ngi nii bu ñu génnee àdduna sunu borom bis bu jot mu yónnee leen ay yiw bu jóge ci àdduna donte faatu nañ juróom-ñaar lañ nee na ca njëkk ci juróom-ñaar yi mooy ki nga xam ni dafa amoon xam-xam di ko jàngale muy jariñ wala sax amoo xam-xam waaye nag xam-xam boo jot muy jariñ nga tasaare ko kooku bu génnee àdduna xam-xamam bi mu bàyyi woon fii ci àdduna ñu di ko jariñoo lu ca waay jëf ci lu baax da koy fekk ca bàmmeelam ñu di ko ko fay donte faatu na liggéeyatul xam-xam bi mu doon tasaare it nit ña di ca jariñu donte faatu na sunu borom da ko yónne ay tuyaaba donte faatu na kooku ci la bokk yàlla nañ ci yàlla boole ñaareel ba mooy koo xam ni dëkk bii day ñu ngay wutee ndox ca dëkk sangam wala ca àll sàngam mu sori lool ay kilomètre waaye nag mu def ay pexeem ba ndox mi jege dëkk bi ba ku yeewu rek gis ndox mi ci dëkk bi ki def lii day doonte génn na àdduna li feek ñu ngi jëfandikoo ci ndox mi sunu borom dëkk ko yónne ay tuyaaba ak yiw ba keroog ndox mooma di jeex sunu borom tabaaraka wa taala yërmandeem noonu lay noonu la toll muy ñaar yàlla noonu ciy bokk ñetteel ba mooy koo xam ne gis na ab dëkk bu amul ndox. mu fexe ba gasal leen ab teen ñu di ca root di ca naan kookee day donte dafa génn àdduna li feek ñu ngi jëfandikoo ci teen bi sunu borom da ko yónnee ay yiw ba keroog teen ba di sakk ba ba muy jeex moo xam ay xar romb ca naan ca ndox ma wala ay bëy wala ay kalbu wala même picc mi naaw ba ba wàcce ndox mi tuuru ci buntu teen bi picc ma naan ca sunu borom dana ko ca bindal yiw yónnee ko ko ca ca bàmmeelam donte fet génn na àdduna noonu la yërmande sunu borom toll mooy ñetteel ba ñeenteel ba mooy koo xam ne jëmbatoon na garab garab ga dem ba màgg daal di am ker ker googee ku fa toog di féexlu sunu borom bindal waa jafa jëmbat garab bi tuyaaba donte génn na àdduna ba keroog garab ga di daanu sunu borom da koy bindal ay tuyaaba li fekk garab gaa nga fa mooy ñeenteel ba juróomeel ba mooy ki nga xam ne dafa tabax jumaa ki tabax jumaa jumaa joojee képp ku fa julli wala nga jàng fa alquran wala nga toog fa naafila wala nga toog fa di waaraate yiw wa na mu toll ak ña ko fekke yiw wu toll noonu dañ koy bindal ka fa tabax jumaa doonte donte da ngaa participer woon ci tabaxuk jumaa ji sax donte génn nga àdduna ku fa julli da nga ca am ba ca jumaa jooja ku fa toog jàng alquran da nga ca am tuyaaba ca ca jàng boobee ku fa toog waaraate la fay njariñ lépp da nga ko ca am donte génn nga àdduna yàlla nañu ci yàlla boole noonu la yàlla toll ci yërmandeem juróom-benneel ba mooy ki nga xam ne fexe na ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu imprimer benn kaamilu mu yóbbu ko ci béréb ñu di ca jàng ka fexe ba kaamil booba génn ñu di jàng kaamil ba ci al ñu jàng alquran ci kaamil ba li feeg ñu ngi cay jàng alquran lu ñu ca jàng ci benn xaraf ak luñ ca mën a def day doon tuyaaba di fekk ka fa indi kaamil ba donte génn na àdduna la ca gën a yéeme mooy ki fexe ba ñu am benn kaamilu alquran ñu jox ko ndongo lii mu di ci jàng alquran ndongo laa ngi ciy jàng da nga ca am tuyaaba yow mi ko ko jox waaye ndongo la bu mokkaloon alquran ci kaamil ba lum ci jàngale day doon ay tuyaaba di la fekk ci sa biir bàmmeel ba keroog kaamil ba di di di di wala nit ka jàng alquran ba mokkal fa ñoom ñëpp dee li fekk ñu ngi dund di jariñu ci alquran ja di ca jàngale day doon ay la fekk ci sa biir bàmmeel allahu akbar yàlla nuñ ci yàlla boole mu juróom-ñaareel ba mooy ki amoon doomam ju baax ci adduna ginnaaw ba mu fa génnee mu di ko ñaanal kooku moom it bis bu jot suñu borom yónnee ko ay tuyaaba muy ay saleeram am kon liggéeyam ci àdduna da koy jot waaye donte faatu na retraité na dem na ci bàmmeel ya liggéey bu mel nii ku ko def ci àdduna lay fekk ba ci sa biir bàmmeel yàlla nuñ ci yàlla boole. kon yow mi amut sax alal joo tabaxee jumaa amoo xaalis boo jëndee kaamil amoo xaalis boo tabaxee dara amoo lenn waaye nag am nga doom fexeel ba yar ko yar bu baax jàngal ko Alqur'aan yar ko yarub lislaam kookee boo fi jógee lum la ñaanal day doon tuyaaba di la fekk ba ci sa biir bàmmeel doom ja sax bu amee xam-xamu alquran di ko jàngale lum jàngale da fekk ca tuyaaba ci sa biir bàmmeel noonu la sunu borom toll mbokkum jullit allahu akbar ba ca des benn xadis ngoog ñu jëlee ko ci Ousmane ibnu Affan yal na ko yàlla gërëm Buxaari yu ak muslim yépp solo xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne tabax na jumaa wala sax mu ba ñu tabax jumaa ja wala daara ja yonent bi ne na ku ko def lu toll ne jumaa ja sunu borom dana la ko tabax tabaxal ca biir aljanna ndax boo ñëwee yowmal qiyaam man caa dugg allahu akbar yàlla nun ci yàlla boole kon dey yow mi tabax jumaa jàppal ni sunu borom na jumaa ja nga tabax toll dana la ko tabax ca tabaxal ca biir aljanna donte da ngaa participer ci tabaxu jumaa ji danañu la tabaxal kër ca biir aljanna na mu tolloo loolu bokki jullit laa doon bëgg a fàttalil yéen samay bokki jullit rawatina yéen ñi bokk ci group groupe alhidaaya wala group sunu diine wala sisters fillah wala group sakku xam-xam nu bàyyi ko xel bu baax yàlla sunu borom tabaraka wa taala ay yërmandeem dafa yaatu ay yiwam yaatu lool amut lu waay di def ci diinam ji lu dul ni da nga ko fekk ëllëg yowmal qiyaam yàlla nee na fa man yaamal mithqaala darratin xayran yarahu yàlla mu ni ku def lu toll ne fépp suuf ci lu baax ci aw yiw yowmal qiyaam da nga ko fa fekk te danañu la ko jox noonu la ko sunu borom bi tabaraka wa taala waxee moo tax nag liggéey bi ngeen di def di ko di ko bokk-bokkoo bu leen ci xeeb mukk seen bopp gis nga ba yàlla waxee ca alquran ni alam yaalamu anna allahu yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaqudu sadaqat ba yàlla waxee xanaa xamu leen ni <clears throat> xanaa leen ni man yàlla may nangu tuub di nangu sarax yi ngeen di joxe lan la ca teg yàlla dafa wax muhammad ni ko wa quli amalu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun yàlla bi mu waxee ne xam leen ni man maay nangu sarax yi day lu waay joxe maa koy jël lu waay participer ci tabax daara ji wala ci jumaa ji maa koy jël yàlla dafa wax Muhammad ni ko neel gaañi booba yonent bi bu bu amee danaan lu waay am rek ñu def ko ci xare bi mën a taxaw lu waay am rek ñu def ko ñëpp bokk Omar indi Ali indi Aboubacar indi ñeneen ña ci des indi yàlla nag ne ko Muhammad neel gaa yi na ñu def nañ liggéey ku ne na am na indi ku ne na def li nga man te na nañu xam ne yàlla seen borom gis na la ñuy def yonent bi yow gis nga li ñuy def jullit ñi ñëpp gis nañ la ñuy def même boo defee sax jullit ñi gisuñu ko yowmal qiyaam suñu borom dana la woo ni la jëf ji yaa ko jëfoon ca àdduna man gis naa ko yëg naa ko kaay ma fay la ko mi ngi nii wa sa turadduuna ila aalimil xaybi wa shahaada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun kon lu waay di mën a def ci liggéeyub lislaam ak nu mu mën a toll ci bari wala ci tuuti sunu borom dana la ko wan ëllëg yowmal qiyaam daal di la koy fay mbokk yi yàlla nu yàlla sunu borom boole nangul mboolem lu ñuy jëf fii sabilillah yàlla nañu yàlla boole defal tawfiq defal nu jàmm fi dunia wa fi axira defal ko mboolem jullit wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu